salaamaaleykum donc euh, ñu ngi leen di nuyu ci turam ak santam di rafetlu jotaay bi euh, ñu ngi fii nag si commune Ida Mouride donc mairie Ida Mouride pour procéder donc à la traditionnelle remise de fourniture pour euh, préparer donc la rentrée donc de demain ñu xam ni école tijji na. les enseignants ubbi nañu di passé donc euh, élèves ñoo war a retrouver donc le chemin des écoles suba incha allahu rabbi loolu moo tax na ñu ñëwoon fii nag si mairie bi pour euh, présider mais aussi teewal fi euh, le préfet Amdi Moustapha programme bi nag nii lañ ko joxe te nii la fas yéene tëddee Euh, mot de bienvenue de l'adjointe au maire ensuite le président de UCCE dina jël kaddu mais aussi le secrétaire municipal au nom donc du maire l'IEF monsieur Mbalou et enfin donc le sous-préfet euh, ñu terminer donc donc la la cérémonie par la remise symbolique donc du matériel ou bien des fournitures avant may jox kàddu gi nag euh, l'adjointe au maire dafay jaadu rek euh, ma def présentation d'usage comme que xam naa ne sama jëmm ji yéen ki som gis donc gan laa si dëkk bi bi mu fi ñëwee ak léegi yàggul ça juste ay deux mois demi trois mois ma remplacer ki fi nekkoon ou bien ki ngeen tàmmoon di gis di saaliwu moom laa fi wutu man nag euh, ab waalo waalo laa rek na nga jóge ba Richard-Toll voilà donc euh, fas yéene ñëw nag bokk ak yéen liggéey bi di ñaan yàlla rek ñu tàmbali mbir mi si bismillahi rahmaani rahim rek euh, yàgg fi lool mais yéen tamit ngeen yàgg fi lool euh, ba li ñu bëgg muy jëmale donc arrondissement Ida Mouride sa kanam yàlla jàppale ñu si bu baax a baax a baax ñu leen di gërëm bu baax seen teewaay. te aussi tamit di leen jégalu si yàggaay bi xaaraay bi parce que xam na peut-être depuis yàgg ngeen trop ci xaar waaye donc euh, ñu ngi jégalu bu baax a baax daal en tout daal moo nekkoon kàddu ubbi tey rek di jox nag euh, adjointe au maire mu tàmbali. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu di nuyu si turu maire di wax it si turu maire euh, di dalal gan ñi. fii ci commune yi de Mouride di rafetlu teewaay bi di wax ne maire de buggoon naa fekke bés bi waaye dafa jàpp moo ko tere ñëw moom bëggoon na koy teewee di si yëgal bu baax di wax ne daje bi de luy ko waral mooy affaire firnatul xale yi ubbite école bi comme ni ko préfet waxee Euh, jaaraat ci sax waruñu waaye ñu ngi koy jéggalu bu baax di jox kàddu gi euh, suñu secrétaire taalamaar di rafet rafetlu bu baax nag jotaay bi ak teewaay bi di jéggalu bu baax mbooloo mi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di rafet lu jotaay bi di jiital ci nuyoo bi préfet di ci teg inspecteur di nuyu directeur yi fi teew yëpp di leen rafetlu seen teewaay di rafetlu seen taxawaay di nuyu CCE yi ma fi bokkal nekk di leen sant di leen gërëm di nuyu waa mairie bu Yida di leen sargal ci jëf ju réy ji ñu def ndax wax dëgg yàlla ku ñëw ci salle bi xam ne liñ fi def nii lu am solo la tey wàcce nañ parents d'élèves yi loo xam ne yéen bu diis la woon ci ñoom te gis nañ ko gis nañ ko rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax di ñaan rek at mu jot rek suñ mënee mu yokk ah ñu ngi koy ñaan mu yokk waaye nag taxawaay bi rëy na rey goo xam ne wax dëgg yàlla kuñ ñëw ne la lii yow lañ ko indil loolu moom rafetlu ko lool lool lool ngay def te wàllu école bi wax dëgg yàlla fàttewuñ leen waa mairie yi de fàttewuñ école yi ndax chaque année danañ taxaw taxawaay bu mel nii wala bu ko ëpp kon nag gàcce ngalaama waaye de gàcce ngalaama maire ndax moom it taxawaayam rafet na taxaw bu mat taxawaay la taxaw ci askan wi te lii yaakaar naa ne dana yegg ba ci suuf suuf ndax ku sa doom waroon na ñëw ne la dama bëgg lu ma jàngee ji tey nga dem école ñu jox la ko nga ñëw dugg seen kër ngërmaane ak kontaante moo fay bokk am kon nag di rafetlu taxawaay bi di rafetlu liggéey bi di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp. Euh, merci beaucoup monsieur le préfet ñu mbooloo mi fi teew yépp di commencer par euh, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ida Mouride di nuyu l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Koungheul di nuyu madame euh, l'adjointe au maire conseil municipaux yi fi ne yépp ak directeur d'école yi ak euh, président CGE yi comme ni ko ñi ma jiitu waxee rek tey liñ fi amal mooy cérémonie de distribution de fourniture scolaire defe naa du guléet fii si commune Idda Mouride période bi saayu jotee avant ñuy ibbi école dañuy amal jataay bu mel nii pour ñi nga xam ne gan lañ fi ñu xam ni lii lu lu xam ne lu bees la si commune Idda Mouride dafa amoon nag ay engagement yoo xam ne dañ ko jëloon avant école di ubbi amoon amal nañ fi benn CDD amal nañ ci aussi CLD amoon ay engagement yoo xam ne acteur bu ne jëloon na ko muy enseignant yi muy directeur d'école yi muy CGE yi muy collectivité territoriale yi ñun nag engagement bi nga xam ne maire jëloon na ko sa CDD bi ak CLD bi defe naa ni lii firndeel na ni engagement boobu respecté nañ ko en dehors des fournitures yi nga xam ne gis nañ ko fi am na yeneen engagement yoo xam ne maire jëloon na ko mooy ñu jéem a xool école yi nga xam ni amoon nañ ay yàqu-yàqu ay zinc wala yooyu ñu jëm ko réparer defe naa ni tey jii ki nga xam ni moom moo koy defar mu ngi sur le terrain te commencé na liggéey boobu beneen engagement bi nga xam ne aussi maire jëloon na ko mooy fexe ba école yi ñu daat koy désinfecté defe naa ni keroog bañ jugee ci CLD bi la maire déboursé une enveloppe de deux cent cinquante mille jox ko service d'hygiène boole kook chauffeur mu wër les dix huit écoles de la commune de Ida Mouride defe naa ni écoles yi nga xam ni moom moo ne ci commune bi yëpp désinfecté nañ ko benn école la ñu fàttee désinfecté mooy sanc taba te loolu erreur la si ñi nga xam ni ñoom ñoo doon ànd ak euh, service d'hygiène parce que ñoom jàppoon dañu jàpp que ni sanc taba bokkul si amuloon école mais incha allah loolu dinañ ko dinañ ko rectifier four ma ñëw si fourniture yi nga xam ni moom moo ñu fi dajale ah commune bi matalewul lépp bien vrai que ni éducation c'est une compétence transférée mais jàpp naa ni spectre ubbi tey jàng tey su dee si commune bi rek war nañ ko mën a matérialiser tey jii képp ku fi jóge élève bépp élève boo am muy di CI au CM2 dina am lu mu commencé parce que ñun dañu am 18 école am 5 CPE am benn case des tout petits ñoom ñëpp doté nañ leen de fourniture scolaire IEF même le CM bi nga xam ni bokkul ci domaine de compétence commune bi sédd nañ ko ci suñu fourniture scolaire kon donc loolu vraiment dañ ciy remercier la collectivité territoriale UCGE wax na ko léegi nee na bëgg nañ suñ defee tey fukk suba ñu def lu ëpp fukk yooyu defe naa ni si lancé boobu la collectivité territoriale bi ne te si lay continuer defe naa ni ku xooloon fourniture daaw yi ak xool fourniture ren yi xam ne am nañ amélioration te loolu incha allah dinañ ko continuer parce que dañ xool ni l'éducation est une compétence transférée te ñun commune bi dañ te dañ ko jël comme principal levier de développement parce que soo xoolee wax naa ko léegi am na yeneen action yoo xam ne ñu ngi koy def ren sunu budget construire nañ quatre salles de classe bëgg koo équiper monsieur le préfet ñun abri provisoire si biir commune Idda Mouride mën naa ne du lu ñuy fàttaliku la parce que ñaari école rek lañ amoon abri provisoire te c'était des nouvelles créations muy l'école de Kassaasa ak l'école de Amdalaay Thiamène yàlla def na ni ren ñu ngi leen di tabax Kassaasa man pratiquement c'est à quatre-vingt-dix-neuf pour cent de réalisation Amdalaay Thiamène presque c'est à quatre-vingts pour cent de taux de réalisation kon donc loolu vraiment aussi dañ ciy saluer la collectivité territoriale tey nag comme ni ma ko waxee en dehors des fournitures am na ay appui aussi yoo xam ne dañ koy joxe nee naa fournitures yi yamul si élèves yi rek enseignants yi dañ leen di dote en fourni en fourniture de bureau même les directeurs d'école le codec dañuy continuer aussi di ko appuyer chaque année dañu ko daa appuyer daaw jéeg jëndaloon nañ leen benn photocopieuse pour permettre leen ñuy faciliter seen seen seen seen seen euh, seen euh, essai yeeg yi ñuy def ak seen seen seen seen composition yeeg yooyu ren aussi collectivité territoriale bi dafa jëndaat beneen photocopieuse mooy photocopieuse bu mag bi ngeen gis na leen parce que dafa am école yoo xam ni am nañ courant am école yoo xam ne amuñu courant la commission éducation bi ñu dajee ñu ni léegi école yi nga xam ne am nañ comment courant ñu commencé par école yi nga xam ne am nañ courant chaque année ñu jënd benn photocopieuse jox ko école yooyu ren ñu jël benn photocopieuse daal koy jox Duuba suñ ko joxee Duuba nag du photocopieuse du Duuba moomu ko école yi nga xam ne ñoom ñooy gravité autour de Duuba même yi gravité autour du collège suñ amee problème photocopieuse suñ soumettre Duuba Duuba da leen di war a photocopier kon donc si lancé boobu lañ commander benn photocopieuse placé ko fële si Duuba te déwén incha suñ fi yàlla bàyyeeg jàmm dinañ taat beneen photocopieuse yóbbu ko zone Casio bi pour permettre écoles yi nga xam ne ñoom ñoo ne foofu ñu man di euh, am euh, euh, foo xam ne fa la ñuy photocopier pour seen enseignants yi ak pour seen élèves yi si codec aussi dinañ ko doter en fourniture de bureau dinañ ko appuyer aussi si fonctionnement à hauteur de cent mille francs dinañ appuyer aussi cellule bi à hauteur de cinquante mille francs yooyu aussi commune bi dina ko def dinañu appuye aussi euh, l'IEF en carburant dinañ ko jox bon carburant de cent mille francs dinañ ko appuyer aussi en rame de papier comme ni ñuy appuyer aussi écoles yi appuyer aussi codec bi ñoom aussi dina leen appuyer en rame de papier wax naa ko léegi aussi mooy euh, euh, CPE yi aussi CPE yi préfet di wax ni tamit euh, ñu xam ni collectivité territoriale bi moom enseignants yi volontaires yi fay jàngale collectivité territoriale bi moom moo leen di fay seen budget CPE yooyu programme PADH la ñu samp ko ci cinq localités yi nga xam ne ñoo nee dans la commune ndaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci biir commune bi ñoom ñoo fay jàngale collectivité territoriale bi moom moo leen di fay seen budget am na aussi leneen loo xam ne aussi bala may terminer aussi dinaa ko si waxaale mooy problème mu aussi désherbage bi aussi foofu tamit di ñaax encore une fois CGE yi ak parents d'élèves parce que mën naa ni engagement yi nga xam ni moom la enseignants yi jëloon inspecteur jël ko collectivité territoriale yi jël ko ñoom ñëpp respecté nañ seen engagement kon bokk na parents yi suba la ouverture na parents yi bàyyi élèves yi ñu daal di ñëw jàng si parce que élève place am heure bi nekkul sa tool sa école bala di ñaax parents yi ñu bàyyi élèves yi ñu ñëw jàng si ñaax leen encore une fois aussi tamit su dee école yi désherber wuñu leen ñu désherber leen. Eh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak si santam di jiital si bi suñu préfet Ndiaye di ko wax ne dalal jàmm fii si arrondissement bu Idda ci commune bu Idda Mouride tamit ko waxee rek démb eh, yàlla na ko fii moom it yàlla na jig fii yàlla na fii nekk euh, lieu boo xam ne nii walay propulser promotion yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko su ma ko jiitalee si nuyo bi dama si teg madame la représentante du maire vraiment di la nuyu di la ñaan nga jottali nuyu ak cant monsieur maire di boole yóbbante boobu it secrétaire général daanaka moom wax na lépp daanaka daanaka wax na ko di nuyu it euh, bépp conseil bu fi teew rek hmm? ak bépp parent bu fi teew bi mujjee si nuyoo bi ñu waroon a jiital tous les directeurs d'école ici présents am naa sañ-sañ mujjee leen parce que man ak yéen ñoo bokk famille daan xam nga la même leen dëgg yàlla il nous accompagne dans toutes nos activités xala ma dajul suuf maa ngi nuyu ñëpp rek ñu ma tudd ak ñu ma tudd si loolu wéyee may rafetu lool li nga xam ne nii fekk nañ ko fi tey muy macha allah fourniture yi bëri yëpp lool te maire bi def ko jëmale ko si école yi donc di ko sant di ko gërëm si turam di gërëm équipe bam yëpp équipe municipale bi yëpp ndaxte nit ki moom soo defee lu nga war a def daf nga sa waregal donc war nañ la jërëjëfal ndaxte nit mën naa xam waregalam te du ko def ah su boobaa it eh bien duñ su mun dara xanaa di génn di wax rek mais macha allah nu mu ko defee rafet na te comme ko defee ak ko defee it moo gën a rafet parce que avant ubbitu école bi. loolu lañ doon na ñaan ñëw naa fii CLD engagement yooyu le maire bi jëloon te ko jëlee respecté na ko parce que wax moom def ko si qualité yu mag yi la parce que yàlla rek moo mun a wax dinaa def heure bu mu def te dara du ko kàllankoor donc nit su ko waxee def ko nañ ko ko santé mais nañ ko santé yàlla hmm? donc yàlla na ko yàlla may kàttan mu yàgg koy def hmm? jëmale ko si école bi du ma ñëwaat ci lu mu ci joxe lépp parce que euh, SG lim na ko équipe bu engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko parce que bëri na mu si gën a rafetlu sax mooy photocopieuse bi parce que loolu dañ ko soxla lool sax lool loolu loolu te ni mu ko waxee noonu la jël nañ ko jox ko Touba foog naa ne ce n'est pas parce que le conseil en éducation et de Duba moo doon jox ko ko ah Wilane du looloo tax waaw lu du looloo tax ah. j'en suis persuadé donc su boobaa ñu xam ne pour CODEC bi yëpp surtout pour nos évaluations parce que léegi évaluation dañ koy def say copie te copie yooyu dafa laaj rame de papier dafa laaj tirage donc su ko Duba yore day mel ni CODEC bi la ko yoral ah te xam naa Wilane xam naa ne yaatu na dënn yaatu dënn boobu ba lu fa ñëw rek incha allah duñ si benn jaaxle hmm? donc mu doon alalu boo xam ne ñëpp nañ ko sàmm ba ñoom mébét bi ñu am chaque année jox benn école day gën a baax rek ci PAM lañ jëm dañ fi dellusiwaat si si ay fan yu ñëw si forum incha allah dinañ si gën a waxtaan en tout cas loolu man rafetlu naa ko lool lool lool lool lool. di jaajëfal lool enseignant yi hmm? directeur d'école yi ndaxte résultat yi ñu am ren. dëgg la suñ ko méngaleeg bu daaw xam ne am tuuti dellu gannaaw waaye lu baax la parce que dellu dellu gannaaw bi yëpp wàccuñu baaru quatre-vingt pour cent yi donc loolu ndam la moom tax nañuy ñaan at yii di ñëw résultat yi di di baaxee walla mën na ko yàlla na ko yàlla defal parce que xam naa ne engagement bi am na fi détermination am na fi volonté bi am na fi sauf que nag foog ñu wax ko année bii dafa nekk année spécial parce que yëpp gis ngeen ko dañoo bëri départ te suñu zone bi zone classe spéciale c'est-à-dire des classes multiclasses lool lool lool tey am na juróom-benn enseignant yoo xam ne juróom-benn école je veux si département am dañ leen nar tëj parce que amul enseignant ñu koy def duñ ko yóbbu si loolu maire ñu ngi leen ñaan loolu leen gën a jàpp rek si recruter personnel di doy donc du ngeen def bëri gis nañ ko baax na gis nañ ko mais loolu leen si gën a jàpp rek gën baax ba fexe ba suñ école en tout cas zone bii di idde di bañ a tëj école ndax loolu gis nañ école yi ngeen si def ñu si san leen si gërëm di leen ñaan ngeen gën koo maintenir ngeen gën koo eh, wëyal eh, parents d'élèves kii wax na ko sooy xool ña jëloon xas fii jëfee ko yëpp def nañ ko yéen sax amaana ñu bëri def nañ mais am na nañu des ba léegi parce que su ma dégloo ba am na école ba léegi déserté bu ñu nekk te loolu du yoon ndaxte benn béykat du jëm toolam dem jël gerteem suul ko fa te préparé tool bi maanaam défrisé wu ko ruuju ko defaru ko ba mu baax doo ko ji comme ko tool nag moo laaj loolu te ngeen ko fay def ak kasaa nag ñàngum gone yi parce que ngone yi tool lañ rek jàpp ne loo jiwu si ñoom doo ko góob loolu moom mooy dëgg duñ naxante bu ko loo deful si moom mënoo ko góob te bokk na si nga def si moom dara mooy def si moom njàng mu baax parce que njàng rek moo yor moo yor réew ëllëg xam-xam moo yor réew pexe du ko yor te xam-xam foog nga am ko foog nga jàng te bokk na si bëri bu jàngukaay yi mën a joxe xam-xam boobu école bi parce que ñun ñëpp fii toog tey commencé ko si préfet si man mii ak si yéen ñi lu leen may gannaaw yàlla surtout bu ngeen am tey école si la te wax naa ko fenn nee naa leen te euh, jooy jooy bi ñuy jooy déficit jàngalekat lu ko waral mooy parce que doomu askan bi dañoo bëriwul jàngalekat moo tax mais soo demee collège ba mu dëkk jooy jàngalekat yaa naa am un surplus d'enseignants foofu na ñoo bëree bëri ba xam fi ñu leen dugal parce que doomu dëkk ba ñoo ñëw si dëkk bi dafa jàngale sooy jàngal say rak say jarbaat say doom effort ba nga say def wute naag sooy jàngal koo xam ne xamul xamoo ko naam di nga ko mais fee gën a bàyyi xel est ndax dégg ngeen fu may waxee donc loolu nag pour mun a am foog waa dëkk bi jóg si njàng may jàng jàngale bi te bokk ni ñu siy jógee mooy ñu waajal école bi d'abord sax yéen koo ko fii ba ñu ñëw fii CLD man maa fi ñëwoon yéen ñëpp waxoon ngeen ne soo leen demee di ngeen béy ana jeunesse bi ana parents yi ana ñu jëloon engagement bi donc wax dëgg yàlla nañ gën a ñaax nañ gën a góorgóorlu si monsieur monsieur le maire benn demande mu lay wax rek bu ma lay jox bu ma gannaaw bu ma rafetloo fourniture yi ba ngeen si boole CM bi parce que wax ngeen ko compétence transfert yi neuf lañ mais ñëpp xam nañ ne mairie yi ou commune yi ñoom préscolaire bi ak élémentaire bi lañ lañ gàddu conseil départemental moo garde CMI ak lycée yi mais malgré ça suñ mairie yëpp macha allah dañuy jàppale suñu CMI loolu dañ koy rafetlu vraiment di leen ci ñaax di leen ci gën a gërëm di leen wax na ngeen sax si loolu lu baax parce que CM bi tur bee nekk rek mais xale yi fay jàngee xale yi gox bi la te njàng moom su bënnee ci gox bi lañ bi indiwaat comme nu wax sànq rek ci enseignant yi am na ñu bëri ñoo xam ne seen gox defaru na seen doom a jàng nekk kilifa defal gox ba. parce que bokk na ci objectif enseignement être capable de transformer son son milieu donc lu ma si yokk rek mooy appui à l'ICGE loolu gisuma ko fi te ñëpp xam ne ni ICGE président wax na ko léegi te bo am na lu mu ci waxul mooy fonctionner wuñ lu mu war a fonctionner dañoo war a fonctionner parce que ñoom ñooy pièce moteur motrice bu nga xam ne nii ñoom ñooy doxal CGE yi e bu si xaw soo waxee merci di mot ñoom ñoo la war a appuyer mais ñoom suñ doxul mais duñ mën a appuyer ñële donc loolu leen si mun a kii daal peut-être euh, bon débat d'orientation budgétaire weesu na da ngeen wees mais ëllëgee ngeen sóoraale leen ñoom parce que yéen rek a jàppale seen seen instance yéen ko moom parce que askan bi la donc loolu la mën a jàppale ñoom it ngeen jàppale leen ba ñu mun a dox di mun a ootey réunion di mun a daje di mun a xool fan la mbir mi sooxee ñu mun faa intervenir ñoom it donc loolu vraiment ñu ngi leen si ñaan su may jeexalee rek toujours ci parents d'élèves bi mooy nu ko secrétaire général waxee école tijji na te xam ne liggéeyu tool yi taxaw na te fu mu taxawee sax mooy njeexital yi fa gën a méttee donc di ngeen soxla ay bras waaye ngir yàlla ngeen jéem a féexal xale yi bañ mun na ñëw jàng parce que tool bu ñorul nga bëgg koo nga bëgg koo jëfandikoo day xaw a day xaw day waar xale yi nag noonu la benn waay di wax dafa dafay dagg ñàmmeem di jaay waaye ñu koy sa waay sa ñàmm bi ñorul de mu ne ko ñàmm bi ñorul man maa ñor donc yéen bu leen ñoree noonu xaar ba xale incha allah su njàngam bënee li ngeen am si moom moo ëpp fuuf li ngeen mën am si tool yi donc loolu daal laa leen invité ngeen jàpp si ba ubbite bii ñu dugg yàlla dafa ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabi ala alamin kenn bañ a manqué hmm? vraiment ñëpp mun koo fekkee lépp lu ñu ci wut yàlla defal ñu ko donc maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wa wasalaam. en commençant donc par le ak ki fi teewal nii ak le secrétaire municipal du nuyu au passage donc tout la conseil municipal le CODEC l' inspecteur Mbalou les parents d' élèves les élèves la corps enseignant ñu ngi nuyu ñëpp comme ni ñu ko defee woon démb fële rek mairie Fass Cekkeen dañoo dellu soit fi si mairie Ida euh, présider donc la traditionnelle donc remise de fourniture di tàmbali sama kaddu rek euh, di gën a saluer donc l'initiative bi maire bi am ak le conseil di wane pas-pas engagement détermination mais aussi conscience bu ñu am ba mën a donc aux enfants de la commune de Idé ñu mën a disposer à temps donc du matériel bi leen mën a permettre jàng si jàng bu si si mucc mais aussi tamit euh, ñuy participer euh, à la matérialisation ou bien à la concrétisation du concept ubbi tey jàng tey mu nekk concept bi nga xamante ne que foo dem Sénégal moom la wax mais nag pour mu réaliser il faut que mu am donc ñu ko accompagner donc ça passe forcément donc par les autorités donc euh, municipales ñu leen si jaajëfal bu baax a baax a baax a baax wax naa ko démb i defalee face euh, li mairie passe def mairie idda def ko c'est très rare nga dem si yenn euh, mairie di fa gis man de fi ma dëkk wax naa ko démb fële Fass Richard Toll fait partie des villes yi nga xamante ne que seen budget ça dépasse le milliard Richard Toll budget bi ça dépasse le milliard mais ñu livrer fourniture à temps amu pour ngeen jot fourniture daa ngeen dem ay mois de janvier ay mois de février te nit boo koy dimbalee da nga koy dimbale si waxtu bu ko soxla donc ñun parents d'élèves yi suñu autorité municipale duñu jàppale duñu dimbale dañu bëgg ñu def ko si waxtu bi maanaam à temps comme ni ko Fass defee comme ni ko Ida defee tey donc loolu nag donc c'est pas une mince affaire nekkul yomb parce que dañ nekk si période bi nga xamante ne que se euh, xaalis dafa laaj ay procédures yu xaw a gudd yu gën a sore maanaam yombul mais nag bu ñu amee un maire Euh, engagé un maire conscient ànd ak équipe bu takk taxaw pour jàppale seen askan donc loolu dañ koy rafet bu baax a baax di leen encouragé di ñaan vraiment lii ngeen man nii cette année ci yàlla suñu borom jàppale leen ba yeneen at yi ñëw ngeen gën mën lu ko aw yàlla mën na ko surtout yal yàlla suñu borom motul yàlla def ko Talla vous très tôt compris que pour ñu développer il faut passer impérativement par l'éducation am réew ab gox boo bëggee mu jëm sa kanam njàng rek te njàng nag fu mu mën tam ñu ko am accompagner donc la mairie a très tôt compris ça pour mën a jàppale donc école yi jàppale donc euh, daara yi mais aussi jàppale enseignants yi vraiment ñu mën a euh, def seen liggéey comme nu mu nu mu waree maintenant j'invite les parents d'élèves pour ñu inspecteur waxee rek vraiment ngeen libéré xale yi le 5 comme suba incha allah rabbi ñu jóge ci tool yi dem jàngi école la place des enfants dëgg la dañoo war a jàppale waajur yi waaye la place des enfants c'est les salles de classe xale fu ñu soxla mooy sa daara ja sa école ba mu dem jàngi wuti xam-xam pour ëllëg mu mën taxu réew mi dëkk bi mën taxaw aussi tamit gox bi donc ngi leen ñaan leen parents d'élèves yi ngeen bàyyi xale yi suba incha allah rabbi ñu dem ci classe yi jàngi dana permettre IF e mu mën a atteindre donc euh, le quantum comme ni ngeen koy xeexee rek hmm. bëgg vraiment enseignant respecté quantum horaire bi donc ça passe par ça le fait que parents d'élèves libéré xale yi ñu dem jàngi donc ñu ngi leen ñaan daal yéen parent yi ngeen bàyyi xale yi ñu dem jàngi parce que école diggi na en tout cas ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax si li mairie bi def waaw maanaam nekk yomb mais dañ si gën a encouragé vraiment di ñaan yàlla vraiment yàlla gën leen jàppale dëgg la bu ndaw la mais lii nii kenn xemu macha allah am na solo trop am na ñu leen ëpp doole fop mënu ko def mais defuñu donc ñu ngi vraiment remercier maire bi ak équipe bi vraiment remercier toute la commune donc de Ida Mouride si taxaw bi ngeen am vraiment jàppale jàng mi pour mu dem sa kanam kanam kanam euh, je pense que. Euh, nous sommes des acteurs donc de l'éducation man mii di wax tey yow jàngalekat laa j'ai fait vingt quatre ans de service classe xam naa lu nekk si jàng li si nekk dafa bëri waaye ba amoo ku la jàppale rek je pense da ngay dem si kanam donc merci donc euh, monsieur le maire merci tamit équipe municipale bi am population de Ida Mouride vraiment merci beaucoup si taxawaay ngi ngeen am si njàng mi bi ñu fi ñëwee li ñu njëkk a def mooy visiter donc les archives xool est-ce que département de Koungheul euh, mi ngi progresser si wàllu njàng waxte wax naa ko démb IEF loolu laa jëkk xool résultat yeeg yooyu te macha allah am na solo trop donc ñu ngi encourager donc le corps enseignant jàngalkat yi nekk yi fi nekk di leen ñaax ngeen gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax métti na nag trop boo si jaarulee doo xam lu si nekk dafa nga jaar si mën comprendre exactement ce qui se passe mais ñu ngi leen gën a encouragé di ñaan yàlla vraiment ngeen gën a jàpp rek parce que lii nii jaamu yàlla bu rëy la waaw jàngalkat kenn kenn mënu fay waaw yàlla mi am fay daal moo leen mën fay yàlla jàpp leen baax a baax a baax a baax waaw di ñaan résultat di gën di baax nag surtout nag la commune de Idda waaw waaw di gën di baax chaque année ko defee je pense que ñu war a jàppale daanu gën sawar jàppale en tout cas ñu ngi leen taxaw waaw lépp la nga xam ne daal mën nañ ko rek jàpp si daal incha allah rabbi yi deen deen ko def vraiment di terminer pour euh, gën a encourager donc le maire yàlla vraiment yàlla jàppale ko yàlla bàyyi ko ba si kanam kanam ak kanam xam trop si liggéey boo am solo bu muy def waaw gan nañ ci nag mais li fi xew dara ump ñu fi waaw dara fi waaw ngi liggéey liggéey bu am solo c'est pas pour lui jeter des fleurs mais def dara nag il faut nga taxaw ni def na mais bu doon benn sax nekk def na nga gërëm ko sant ak pour ëllëg si biir mën yokk mais ñu leen ñaan daal vraiment ngeen gën a góorgóorluwaat li ngeen def nii déwén ngeen def la double ou bien le waaw parce yàlla mën na yàlla na yàlla jàppale bu baax a baax a baax kontaan nañ trop si ñëw bi ñëw fii si Idda pour la première fois nag ñëw fii si dëkk bi mais am nañ si yaakaar daal bu baax a baax